asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, bokki bokki bokki taalibe eh, bokki taalibe eh, maa ngi dégg ay yëngutu ci dëkk bi yoo xam ne yu ma jóge kaw la ah, lu mën a xew daal